ñoo toppoon sëriñ Touba bu dee jógee Mauritanie di ñëw danay bind ay kaamil alxuraan ñoo di jox Serigne Touba Serigne Touba di leen jox ay xaalisu ngurdu noonu lañ toppoon seen i baay dem topp ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Serigne Saliou daan leen teral tey sëtam yooyu waaye Mohamed Niang dafa bëtt frontière yi dugg Mauritanie ba dugg seen i xol ñoom ñu ne tey guddi Mohamed Niang gi duñu ko tardé Abdoulaye Ibn Soubeyrou ñu jox la kàddu gi rek nga nuyoog askan wi. asalaamaaleykum mbooloo salaamaaleykum siyaare naa leen bu baax a baax a naa leen bu baax a baax a baax ñu ngi tuubal di sàkku suñu borom mu def lu ñu ay taw fiir suñu biiru xool ñu ngi tuub ci lu ñu xam ak lu ñu xamul tamit di wax jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. tey dañu doon jóge fu sori di bëgg a ànd ak yéen ci guddi sant Serigne Saliou. ànd ak sëñ Mouhamed ñoom ñu ngi jégalu ci temps bi moo tax duñu mën a yàgg ci wax ji ma ngi pas sama micro ci suñu kilifa yi kilifa bu rëy la kilifa bu mag la taalibe Serigne Touba la jërëjëf sole mu dañoo ñàkk baña ñëw teew alhamdulillah ndax si sale la alhamdulilah yee sant ma wër bi nga tànne ngir may sab werekaan def ma ni nga def mag ña mbaalo rew mbaake bal yow mi dana joxe mbir te tey la alhamdulilah yee ma wër aksina jàppandal gi moo ñëw jariñ si moo ne anu du tog lor mbiram mi ala bëgg leen mu jox leen yàlla moom def na ni Mame Diarra xëy na léegi la sax nit ñi dootuñu ma gis ci yu mel nii parce que cër yi ñu yàlla jox tamit dafay yokk xëy na ni mbir mi demee la moo tax sax ñu mën cee ñëw ndax mun nañ koo méngaleeg daanaka euh, mbiru yàlla ndax yëfi sëriñ Bamba boo ko méngaleeg mbiri yàlla wàcc nga moo tax sax ñu teew waaye fii moom béréb bi xam nañ ko miin nañ ko parce que suñuy rakk rek ñoo fii ñëw

ndax sam papa daf ma daan wax maam jaara nit dañ koy réserver waaw boo réserver nit loo soxla ci nit mën nga koo am yow ku la waajoo am waaju ko kenn ku la lee yaa man ci waaju ñu xeeb def ko ab sëriñ te sa julli ñaari tànk gën jafe amuloo morom bi defaree sab tanga rek karaw see xaccal 哎呀。

nanu lay tee texe yaa gën turandoo tudde Serigne Saliou raw nga saaliwu kem li ma xam ci adab xam nañ li mu doon daw nga daw nga wii di dexel ba say maam raw kar Cheikh dañu moom saaliwu xam nga ajanaam sab kër du jooy xéewal cey sëriñ Saaliw ci koñ mooy ar dëkk chogo yam gani rawanga manu lay te taxe jamono gi ñëw ko ko do di sa sa jar ba ba ba di sa xeex Serigne Saliou yërëm na noo forever. Shanala. dañoo ñëwoon ci bis bi rek pour teewal suñu waajur Moustapha Cissé Lo nga xam ne moom taalibab Serigne Saliou la lépp loo xamante ni rek dañ koy def ci yoonu Mouride bu ñu ko ci wooyee rek dina fekk si def ci li nga xam ne mooy participation am euh, duñ fàtte na démb lañ jógee xel kom demoon nañ ziare yi ci jam def nañ ci ay ay mbir yu solo te ñu waajal bisam bi nga xam ne le 28 la muy cant Serigne Saliou di 16e bi nga xam ne depuis Serigne Saliou nekk ba léegi mi ngi koy def kon kooku dafa dem koo xamante ni dafa lëkkoog Serigne Saliou ay goj kon bis bu ñu defal suñu saali di ci woote rek du bëgg kenn man ko ci wala kenn ci du bëgg loolu moo waraloon suñu teewaay tey jii. waaw. xarit la bu baax la yëgal ñu ko ñëw teew ci xam lépp rek ñu ànd ak moom ñu jàpp lu baax a baax. fii naa lii mooy sama première fois moo fi ñëwee li ko waral mooy. guddik Serigne Saliou la ndax Grand Théâtre bañ koy taxawal ñu ci bari gëmu woon ne woon daan fi taxaw bu fees ni ñu fiy tàgg Serigne Touba kon nag bu demee ba demee nii fees ñu fiy tàgg Serigne Touba loolu la fi te Mouhamed Niang dañu suñu wóllëre suñu mbokkum taalibe Serigne Saliou def suñu li muy def suñu kon nag waaw waaw Mouhamed Niang bu xewlee suñu bis la Serigne Saliou dafay xam xam moom moo ñu defar ba ñëpp mën a ñëw sant yàlla di julli bu baax a baax doole ñaanal Serigne Cheikh Saliou Mbacké yàlla suñu borom yi guddalu fanam wéral ko ba yéen am ci liggéey Serigne Saliou yëpp màggale ko di doole ñaanal Serigne Saliou Mbacké suñu yaakaar te ëllëg gi yàlla suñu borom doole ay leeram tax suñu barkeem ñu doole santaat yàlla rek di julli ci bi lii lépp rek ñuy day wane rek ne Serigne Saliou Mbacké euh, maanaam ay mbiram euh, ab jant la nëbbuwul woo xool gis ko waa di wax jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou barke Serigne Saliou Mouhamed Niang nag sunu rakk la di sunu xarit bu xewlee tey boole ñu ci marraine yi jaadu na ñu jóge mbuur def déplacement ñëw ba ci Grand Théâtre fekk si bés bi ñu bokk Serigne Saliou bokk Serigne Touba di ko ñaanal rek lii mu sumb xam naa ne am na ci ndam ndax Serigne Saliou taxawu na ko di ko ñaanal parce que am na carrière bu am solo bu mu war a def ci àddinaam parce que foo ko fekk mu ngi tagg mu ngi sant Serigne Saliou

sale. Hallelujah. 哎呀！ geesu jara wala mbaake ma way la yaa jara yaa kaa tibisi yow yaa jara yaa kaa tibisi yow yenu jëm waaju the